ke sangu-sang yi di ziar bu baax a baax Kajoor Cissé moom tam namoon naa ko bokk moom plateau Pape Malick ah këy mm-hmm. naa laa estar nag baax a baax waaw <laughs> ma delloo la kàddu nga dee dal rek jàmm day pétaw këy naa nuyu naa la déwéneti war ngaa baalu ñëpp ak ndax bàyyoo kenn surtout nuyu naa la dalal ak Pape Malick ça va alhamdulilah xanaa ma leen di naan déwénat yi baal leen ma ak di leen baal ak bu baax a baax j'espère que vous avez passé une très belle fête et euh, waa Allô Sénégal namoon nañ leen bu baax a baax xam naa ne aussi namoon ngeen ñu mais de retour Aïcha. Mm. namoon naa la yow nga baal ma nag foog nga baal ma. baal la yow <laughs> <laughs> nga dal leen ak jàmm alors. merci beaucoup Keina tey lan nga tey nag damay daal di ñëw indi astuce bi nga xam ne pour énergie la. waaw xam nga matinal moom boo koy def surtout ñi nga xam ne dañuy teel a yeewu il faut ngeen ànd li ngeen xam mooy énergie donc am na ñi nga xam ne bu ñu yeewoo rek seen journée day yàqu parce que euh, duñu daal di nekk forme dañuy daal di donc tayal boobu li koy dindi c'est c'est c'est c'est yi nga xam ne euh, mën ngeen ko def seen kër à la base boo leen demee ci ci euh, restaurant yi ngeen di dem ndékki ji dañ leen di defal jus d'orange donc am na yenn astuce yi nga xam ne wala naan wala lekk yi ngeen xam ne mun ngeen ko defal seen bopp donc tey dama daal indi benn benn euh, infusion bi nga xam ne dafa daal di ànd ak ñeent ingrédients mën nañ si citer lu ci mel ni orange donc orange ñëpp xam nañ ni dafa am vitamine C. Mm. et puis day sawarloo dit donc am na li nga xam ne mooy carotte donc euh, am na li nga xam ne mooy gingembre et pour finir am na li nga xam ne mooy citron ma ànd ak complicité waa régie ñu daal di ma accompagner. Ah, voilà comme ni ngeen ko gisee nii dinañ soxla li nga xam ne mooy quatre orange donc carte orange yi euh, donc ñëpp xam nañ ne orange nag dafa daal di riche en vitamine C euh, lool ci li nga xam ne mooy calories mais aussi am na source de magnésium et de calcium dafay lutter contre la fatigue mais aussi dafay daal di baax lool li nga xam ne mooy digestion donc orange bi boo leen ko jëlee ngeen raxas ko ba mu set da ngeen koy daal di xolli euh, daggati ko dinañ soxla également li nga xam ne mooy ñetti carotte donc carotte aussi euh, dafa daal di nekk légume bi nga xam ne dafa puissant lool ci antioxydant faible ci calories mais aussi dafay lutter contre la vieille le vieillissement du moins euh, donc vieillissement surtout ñi nga xam ne dañuy daal di am vieillissement précoce dafay daal di permettre à avoir également une bonne mine et dafay lutter contre li nga xam ne mooy constipation euh, maanaam ñi nga xam ne dañu am problème di serrer tout le temps mun nañ ko daal di utiliser donc bu leen ko raxasee ngeen xolli ko ba pare dinañ soxla également li nga xam ne mooy gingembre maanaam ginjeer ginjeer nag moom nag dafa daal di bokk ci famille bi nga xam ne moom la ñuy woowee curcuma te ñëpp xam nañ ne curcuma moom dafa daal di baax lool ci euh, yaram et puis si wér gu yaram donc ginjeer ak curcuma ñu bokk même famille donc baax lool ci li nga xam ne mooy euh, santé donc dafay faciliter li nga xam ne mooy digestion pour ñi nga xam ne dañu am problème di digérer donc dafay lutter également contre euh, la fatigue mais aussi pour ñi am problème de cœur li nga xam ne mooy ginjeer da ci daal di baax et pour finir citron la ñu daal di soxla citron moom tamit ñëpp xam nañ ne dafa daal di euh, baax lool ci li nga xam ne mooy pour sawar et puis euh, anti minceur la dafay daal di wàññi nit mais aussi am na yeneen engrais am na yeneen bien-être yi nga xam ne ñoo nekk ci biir euh, citron mun ngeen dem également xool bien-être ingrédients yi yëpp ma leen indil donc boo leen ko raxasee ba mu set dagg ko da ngeen di jël seen mixeur ngeen daal di mélanger le tout lii curcuma la également plus la si rek da koy gën a baaxal ngeen daal di ci def ndox vous voyez euh, donc boo leen ko defee ndox da ngeen koy daal di mixer ndox bi nag day daal di tax euh, mixer bi daal di gën a yomb donc boo leen ko mixer ba ngeen xam ne homogène na gisoo leen benn euh, ingrédient bi nga xam ne dafay nekk ci kaw ngeen daal di ko xelli def ko seen verre euh, wala seen euh, carafe bi ngeen xam ne foofu ngeen di def également seen jus donc bu leen neexee mun ngeen ko segg mais nag euh, ngeen bañ ko segg moo gën a baax donc lii mun ngeen ko def au frais comme boo leen di naan mun ngeen ci def rek li nga xam ne Aïcha mooy glaçon donc boo leen di yeewu le matin boo leen di ndékki rek mun ngeen ci ut seen verre ngeen daal di ko voilà boo leen dékkee ba pare ngeen daal di ko naan donc boo leen ko naanee nag day daal di tax seen journée ngeen am énergie yeewu am cawarte mais aussi c'est à éviter pour guddiment bi ngoon ma bi boo leen di avant ngeen di tëdd ngeen daal di ko naan parce que boo leen ko naanee rek pour ngeen nelaw mhm. dafay daal di compliqué parce que citron bi ak li nga xam ne mooy euh, orange bi yëpp ay vitamine C la Aïcha mu nekk euh, infusion bi nga xam ne yomb naa defar et puis c'est trop bon pour la santé parce que dafa bëri lool li nga xam ne mooy ay bienfaits euh, ndey jus bi daa mel ni sax na de. <laughs> ndey jus nga ko waaye lii waa région war nañ ko di naan nag. Mhm. Ousseynou. bu xëyee war nañ naan lii. pour gën a yeewu ñamal ci bamba. ngay <laughs> tax ñu yeewu. Aïcha li ci gën a am importance mooy euh, euh, femme enceinte yi ñi nga xam ne dañu nekk enceinte lii mhm. amul benn danger si ñoom. parce que waaw mën nañ ko naan parce que yëpp mhm. ay ingrédients yu naturel la yoo xam ne mën nañ ko am facilement seen biir kër. c'est bien. man <laughs> parce que yi borom xaalis yi koy naan ñun comme ñoo di doole ñu waa famille di Coure dañu jël benn yi. <laughs> <laughs> Ah, orange yi tabarkàlla mm. bëgg naa boobu. was bi tamit xam nga pour néew doole yi la ñun boobu tam bëgg naa ko. saa jox nga nga sëyi sama café citron naan wala ma naan sama was. Ah. vraiment da lay sawarloo te am mm. di la euh, préparé préparé. très bien Kajo. yéen it war ngeen di xëy di naan yi de seen journée day. fajar day yéen ñii journaliste yi am na ak Pape mi nga xam ne yenn saa yi day tëdd yeewu bari nga ci morom. waaw te c'est accessible. waaw produit yi doo doo doo. doo sonn donc euh, c'est vraiment bien. Pape. waaw bon vitamine C et tout eh. <laughs> euh, kii dama ko namoon neexuma. bàyyi Pape Malick waxal Pape Malick laa mais waxal rek ñun ñëw rek la ñuy topp. non bon c'est bon c'est bien bon boo boo xëyee loolu loolu la Achane lu tax simple nii nga mel. <laughs> maa ngi lay tooñ commencé tina te dama ah, baalu ak nii. <laughs> merci merci Keina ñu jaajëfal na élément bi am na solo waa région boo leen xëyee da leen naan yii. xadi mi ci suuf ak Babacar ak ñoom Aïda mm. war nañu di naan yii ndax ñoom dañuy xëy suba ba ngoon jot jàkkaarloog machine bi mm? kii moo ko war a naan kii xam ne jinjeer na ko gisee nii rek sawarul moom yeewoogul <laughs> parce que bu nekk dafa efficace ah uh-huh. orange dafa efficace yow fajar la laa nga ko billaay bëri nga ci morom nag merci Kéna <laughs> jaajëfal bu baax a baax uh-huh. alors léegi-léegi ñu ànd ak Ndeye Pétaw moom pied les problèmes les mm-hmm. cas na moon naa ko ah, moom it des fois aussi les les les xew-xew. les solutions léegi léegi ñu dikkaat ci plateau bi ànd ak Pétaw.